ba ñu ngi toog ak sëriñ Abdoul Ahad buso mu bokk ci waa xidma ku leen xam-xam leen ci liggéey sëñ Tuubaa bi fee ci Touba sëñ Abdoul Ahad Bousso xam naa ñu ngi koy jox moom itam mu nuyoo bu ko defee wax ay kàddoom ak ay tànkam. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu baax di ci nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha mi toog di leen nuyu ci turu daayira Muxaddamatul Xidma bi jumaay Touba ci njiital sëriñ Afia su di nuyu yéen waa Touba Argentine yëpp euh, suñ tuddee suñ Mor Sall ñi nga jawriñ ji ak mboolem yéen ñi nga xam yéen fi nekk kenn ku nekk dara ji la yàlla jox ñu ngi la koy jox ci rafet lu baax nag ak sant yàlla bu baax ci yittewoo gi ngeen yittewoo daayira Muxaddamatul Xidma bu jumaay Touba ba tax ngeen def ay ay ay safo ak xëcc yëpp ba tax ñu déplacé wu tey ñëw fii ngir ànd ak yéen ngir yaata fi liggéey bi ci mbokki taalibe bi fi nekk ban cee jàpp ñi nga ànd ak sunu xarit sunu wëlëre Serigne Khadim Gueye muy yëngutu ci xasida yi kon xam ne nag boo da ngay dox lu jëm ci jumaay Tuubaa jóge ci jumaa ja hmm. ànd ak ku yëngut ci xasida yi hmm. mel na ne lu jaadu la hmm. waaye ñi ngeen fekk di taalibe Sëriñ Tuubaa tamit lu jaadu kon tamit nag euh, ñu ngi ñëw daal ngir jotal leen nuyoo daayira Moukhaddamatoul Khidma ak mbokki taalibe yi fa nekk yëpp ndax yàlla dogal na bi ñu laataa jóg njëkk jël Brésil mhm. eh, bi laataa jóg dem nañ ba ci Cheikh Mamadou Mountakha tàggu ko mhm. wax ko li ñuy tax a jóg ba mu rafetlu ko dot ñaan ni ñu ni ñu leen ñu bokk taal bi yëpp mhm. kon nag yéen ñi nga xam ne ci seen yitte ak seen ko safoo moo waral gi ba ñëw fii yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci yittewoo gi di lépp Serigne Touba rek tax waaye Serigne Touba mi tax yàlla leen ci defal lu kawe seen njort kon ñu xamal bokki taal bi yëpp ni yegg si nañ tey jii fii ci Argentine fekk si bokki taal bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh